Apprends tes leçons Amadou del jàng say leçons. Apprends tes leçons Amadou del aïe aïe leçons. Allez va-t'en. Comment appeler ton père? J'en ai marre. Il faut que je règle ce problème une bonne fois. ah góor gi xaali ñëw nga. Moussa Seck mbay mi am jëmm. ça va alhamdulilah. naka sa dugub. ça va góor gi xaali. dugub ak lépp ça va bien. sa doom ji moo tax ma woo la. lu xew ma jëmm gis nga Amadou ni laar la te nanguwul jàng. yaa ngi perte temps nag. su doon maa yow dinaa ko teel a génne école dugal ko métier. ii ma bañ ma bëgg mu doon président. président. yow kii mënul sax lire nga naan président xaaral ma woon la Amadou quelle est la devise du Sénégal